sëriñ si ci yoon wi di kilifa yoon wi tàmbulee ko ci seex Mamadul Muntaxa déclaration daaw ñépp dégg nañ ko te boobaak léegi kenn déggul mu wax ne deltu na ci ginnaaw gisuñu mu jëf lu waroog loola kon waxi daawam mooy waxi renam te képp koo xam ne sëriñ Béthio cuun jaboote na la ku ne xam ne ne sëriñ Béthio cër bi mu amoon sëriñ Saalihu moo ko ko defaloon te samp sëriñ saalihu képp ku bokk ci xaadimu rasul boo ñëwee da nga koy gën a dëgëral waaye doo ca wàññi dara sampub sëriñ saalihu fu ngeen fekk njabootu sëriñ Touba la leen ca war mooy suuxat ak màndal ba ba mu baña lax bañ a gooy kon bu ñu sañoon njaboot googu nekk benn bi ñu nekk ak Cheikh Béthio ba mu làqu li gënaloon kilifa yi mooy njaboot gi góor ak jigéen ñépp àndandoo nekk benn dox ci dox yi yoon wi dox yi nu yoon wi nag mooy ku mag nañu la jiital ak kër goo mën a nekk ci kaw it nga nekk góor ñu jiital la ca kër googa loola moo tàmbali jamono yi Cheikh Mouhamadoul Moustapha ginnaaw bu Xaadim Rasul làqoo ba agsi fii tey ci seex Muhammadul taxaa yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér njabootu sëriñ Béthio Thioune nag ku ne xam na ne sëriñ Saalihu moo taxawaloon seex beeco jox ko cér bi mu ko jox ba mbooloo mi ànd ak moom kon loola amul kenn ku cay wàññi dara ci njabootu sëriñ tubaa léegi nag foofu dañuy xalaat ne ginnaaw bu xalif général de Mouride jàlle sëriñ seex moom sëriñ saalihu mooy kii fi nekkal sëriñ saalihu ñu koy ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te may ko wér muy koo xam ne ñépp xam nañ njubam ñépp xam nañ ak sellam ñépp xam nañ ak bëggam sëriñ Touba ak yoon wi nu mu ko ñore ba tax na baatam ak waxam mook jëfam ñooy dëppoo moom nag joxlante nañ ay kàddu ci bëccëg ci teewaayu sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir mu leeral ne bi ma ko waxee ne ko taalibey morit yi day dañuy laaj mbirum soxna soosu ak ci màggalu tuubaa gi ak yëngu-yëngu yi mu daan def ak lan moo ci sa gis-gis mu wax ne moom amul benn gis-gis bu dul bu gis-gisu sëriñ Muhammadul Muntaxaa li sëriñ Muhammadul Muntaxaa gisoon wax ko ko digal ko ko ne ko kii nga xam ne mooy sëriñ Saalihu Cuun mooy góor moom na jiitu jigéen ñi topp ci ak ndaw ñeeg gone yi ah laa wax de na ngeen na ngeen ne patt de patt de loolu dana ko ñëpp dégg patt te nuu ci xasaay bi wakaanaak xan bi ay ca leen ci te boole ko patt asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu fas yéene yëkkati sunu kàddu di wax ci mbirum soxna Aida Diallo waxunu nag ngir tontu kenn wala di contre kenn loolu du sunu mbir waxunu ci diw moo war topp diw lool du sunu mbir waxuñu ci ginnaaw bàyyi kenn wala ginnaaw kilifa kenn dañuy weex li nga xam ne sénégalais yu bari ñu ngi ci wax wala am nañ ci xalaat ñii di ko wax ci salon yi ñii di ko wax ci grand place yi ñii di wax ci bërëbu liggéeyukaay yi ñii di ko wax feneen nun nu fas yéene yëkkati sunu xalaat jëmale ko ci àddina bépp ñu dégg ko mbir mi nag moom muy mbirum soxna Aida jàlloo man su ma sañoon day te rafetlu wu ma tamit nii ñu koy teretee soxna Aida Diallo tariixa bu ko amoon duñ ko def nii ñu koy def wala duñ ko def nii ñenn ñi di ko def lu mën a xew ak lu mu mën a demee rek nanu xam ne jigéen gu man góor la nanu xam ne jàmbaar la aw nagam musta yeewi sama kër aw xaram musta yee sama kër barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare euh, di leen nuyoo nag ci kàddug soxna Aida Saliou moom Serigne Béthio mu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Saliou mu yàgg fi lool moom it te ànd ak wér buntam ci Serigne Saliou mu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp te di leen yëgal ni kàddu yi dafay sori waaye su fi nekkoon mooy jàkkaarloog taalibe yi waxal leen ko boppam kàddu yi nag weesuwul ndigal li nga xam ne moom la Serigne Mountakha digle ci màggal gi nee na mi ngi koy yeesalaat ci mbooleem kum àndal. te di la wax ne lépp loo xam ne sëriñ bi digle na ko mi ngi ko yee salaat ci taalibe yi tey digal ñëpp ñu tënku ci waaye lépp loo xam ne sëriñ bi tere na ko nee na mu ngi koy fàttaliwaat taalibe yëpp tey ñaan ñëpp wattandiku loola te sori loolu